yëkkati naa doom day ma ngay sargal baayam direct news ne moom président Macky Sall day jël na stade bu Sénégal bii di pee ko maître Abdoulaye Wade jëf ji xale yi nag ndaw ñi war nañ cee mën a roy ndax jëf ji président Macky Sall daal di def direct news ne ma ndaw ñi war nañ cee xam ne doom day la mu war a dëkkee ak baayam mooy di ko sargal waaye jëf ji wane na ni président maki Sall ba tey grandeur mi ngi ci moom moom Sall ngaari lam tooro Abdoulaye Wade nag mbir mi neex ko ba jéggi dayoo te leneen daf caa làqu de direct news ne ma bëgg-bëgg ak Serigne Mountakha mu tedd mi ñaari gaay yi lii dana ko gën a wuttu tribune ne ma déet bul sori de tuddeem stade mii di leen ci ne diggante président Macky Sall may sa Wade ak góor ga Abdoulaye Wade coow li coow li nag boo lambee ba ca suuf mbirang ca gaay yi nag doon nañ leen jiiñ ab protocole bu ñu duppee bu Conakry muy déggoo goo xam ne defoon nañ ko ca Conakry lii nag dafay gën a boobu le protocole maître Abdoulaye Wade ci jamono bëggoon nañ ko fi tuddee aéroport international bu jas bii mu lànk lan moo tax tey Wade mii nangu tuddeem stade dëgg ji kay mooy waxtaan wanu dooroon moom Sall ngir nag defuk diil Karim Meïssa Wade mën a ñibbi si waat ci réew mi mësta dakk laas ne ak a sori woon ak luy dakk fee ca Paris Abdoulaye Sall ma du ñoom ñaar rek de ndax Karim Meïssa Wade ak Macky Sall ci boppam ñi ngi waxtaan te boo moytul nag jàmm dina dox ci diggante ñoom ñaar lan moo waral nag waxtaanu Karim Meïssa Wade beeg Macky Sall bi mbaadu nag élection locale gi ñàkkuk bennoo gi dafa tax nag Macky Sall weddi leen ba war a wut yeneen allié réew mi ko di ma en tout cas Macky Sall mii nga xam ne tey jii mooy sargal waa parti démocratique sénégalais seenu njiit Abdoulaye Wade fàttaliku leen ci ginnaaw lépp lu Wade tabaxoon moom président Macky Sall mii moo ko tojate rajax yemu ca moom Macky Sall def la gënoon metti Abdoulaye Wade jël doom ja ni ko rapp ca kaso ba teg ci nag ne da koy fayee ko xaalis bu sakku lool xaalis boobe fu mu féetee lii ko dijee ne juróom-ñaari at ci ginnaaw ba tey ñi ngi laajte xaalisu traque des biens mal acquis ba fan la féetee en tout cas Aminata xam xamle woon na fi ne ñaari téeméeri milliards ci sunuy jot nañ koo ronq ci Karim Meïssa Wade 2012 ak tey boobee gars yi laaj fan la dugg ci réew mi boobaak léegi ñi ngi daw ci ginnaaw koppar goo xam ne yoreel nañ leen ko la ñu mën teg loxo boobaak léegi mooy ñaari appartement yu Karim Meïssa Wade yoo xam ne jaay nañ leen Meïssa Babou économiste ne coowal Karim Meïssa Wade day politique moo ci gën a laxasu wàllu koppar la ca génn bariwul le quotidien le quotidien ne en tout cas day ñett tax na jege yoo amaat diggante Abdoulaye war ak Macky Sall l'exclusive yéene kaay ne ma loo ci mënti dégg it moom président Macky Sall bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fi gën a sargal président de la république gi fi woon Macky Sall sargal na Abdou Diouf Macky Sall sargal na la Abdoulaye Wade te la mu defal ñaari président yi kenn defalu ko woon Léopold Sédar Senghor te dëgg-dëgg la mandat ne ma Sall ngaari lam toora day li mu defa gum ci réewum Sénégal président defagu ko ci wàllu bilan ndax itam saa bu xëyee moom Macky Sall ma ngay dalloo de te ay infrastructure yu mag la président Macky Sall di dalloo 24 heures yéene kaay ne ma ku ne nag président Macky Sall ma ngi lay jël jamono ji ngir di la teg ci wetam yeewi askan wi na coalition la boo xam ne na muy jëmee kaw mi ngi tiital président Macky Sall Ousmane Sonko ak Macky nekk ci xëccoo goo xam ni mar day taali la ca desoon nag mbaadu jëli Abdoulaye Wade taf ci wetam l'évidence yéene kaay ne ma laaj ba mooy Madické Niang ak Pape Diop mbaadu dañu fekki Macky Sall Walf Quotidien daal di may xamal ne Macky Sall day ma ngay wéetloo yeewi askan wi di ko bàyyee boppam jël ñëpp taf ci wetam l'enquête quotidien daal di ne ma élection locale yi day moo andi lii waaye nag élection locale yi lan ca mën a nemmeeku bokk na ci nag ñàkku xarañte ñenn ñi jëfee wàllu xaritoo waaye tam ñàkk teew yenn kilifa yi ci saabu conseil municipal amee Sud Quotidien ma yooyu la élection locale day gis nañ ne parité bi respecté wuñ ko ca Aïssa Wade turbine yéen kaay ne ma ña ngay naqarlu na Saliou Dieng yore parti démocratique sénégalais ña ngay sàkku mu daal fay jógee turbine ma ba tey Balde nee dafa bëgg nekk président de la république 2024 source aane ma préfet bu Ndakaaru day dugg na ci coow moom Mor Talla Tine dafa sàkk woon ci sous préfet bu Dakar Plateau mu daal di nag jële ay mécanicien ca yaraax mécanicien yooyee lànk ne ab promoteur privé lañ koy jébbal beneen autorité ñëw dëkkal fa mécanicien yi juróom-ñett ci ñoom jamono ji ñi ngi ci loxol yoon l'indépendant ne ma boobu la jamono waa Sénélec ñuy xaatim ak déggoo seen diggante ak benn société boo xam ne bitim réew la daal di basé woo Samuel Sarr moo dox mbir ma l'indépendant ne ma téeméer ak ñeen fukki milliards ci sunuy koppar at wu yàlla sàkk man nañ ko am ci boobu la liggéey ñaar fukki at juróom war nañ koo liggéey ci réew mi te kat la ca doy waar moom moo di mbir ma amul appel d'offre te boobu la société rek ñu ngi ko taxawal fukki fan ak ñeent ci weer novembre 2019 càccang cay xeeñ Dakar Times xamal ma ne diggante Dakar ak Ankara day ña boole seenu doole ngir xeex terrorisme le soleil yéene kaay xamal ma ne ñuy xaatim juróomi accord diggante Sénégal ak Turquie te président maki Sall moo def lu ni mel ñu daaneel ak xale bu góor bi libération xamal ma ni moo doon nag bu booboo ne moo Yaya Diallo député te bari na ci ministre yoo xam ne lekk na seenuk alal te dara waralu ko lu dul taxaw ne leen man maa Yaya Diallo bu leen fàtte ni mi ngi ci réew mi te day far <laughs> ñu waxtaane li nga xam ne moom moo xew tey jii di Abdoulaye Wade ma ñu war a tuddee kon stade mu mel ni kon bëri na ci ay légendes sénégalaises yu nga xam ne neex africaine yu war a teewe bés bi waaw loolu nag lépp rek ngir jëmal nag bés bi nga xam ne mooy inauguration stade bu Abdoulaye Wade tax na nag kon bu 19 heures jotee dañ fa amal nag ab match de gala bi nga xam ne ay star yu football bu Sénégal yu ci mel ni kii di El Hadj Ousseynou Diouf Kalidou Fadiga Roger Mendy Omar Daf ba ci noonu Salif Diawa ak daanaka staff Sénégal yu bëri dañ fa teew amal fa nag ak match de gala ci noonu ak seen ay nattango yi nga xam ne ñoo bokkoon ci terrain yu nekk tamit ay légende yu football bu Afrique ñoom Drogba Eto'o Okocha Adebayor Roger Milan Patrick Mbomba ci leeral ak Soxna Fall. sénégalaise ak africaine di daje ngir ubbi stade olympique de Diamniadio bi nga xam ne wax nañu ne maître Abdoulaye Wade lañu koy dippee gouvernement bu Sénégal def ay jéego yu am solo kon tey yile ci talaate ji la ñu amal ubbuteeg joyau bu ni mel nga xam ne liggéey bi door nañu ko boobaak léegi def na ñaari at ay invité yu bari ñu leen ci xaar. njiitu réew yu bari tam bokk ci Paul Kagame bu Rwanda Adama Barrow bu Gambie waaye tam président bu Turquie ak bu Allemagne président Macky Sall war a ànd ak Gianni Infantino di patron football mondial bi stade bile am ci lu toll cinquante mille places di répondre officiellement ci normes yi nga xam ne FIFA moom la daal di teg. leneen lu soxal bi la jotaay xibaar ci tàggat yaram moo di CAN féminine bu Maroc 2022 Mali Sénégal tey ji sa Bamako aw tey ji nag ca Bamako la ñu amal match retour bi ngir nag lu jëm ci tour gu mujj ci CAN euh, Cameroun euh, mille Maroc 2022 jëm nag ci wàllum jigéen ñi di fàttali nag kon boobu la jogante kon 17h la foofu ci stade Modibo Keïta Sénégal nag moom moo ko daanoon ci match aller ba ni kii euh, semaine bi ñu génn foofu ci stade la jor bu Thiès benn bal ci dara kon nag mbébétu équipe nationale bu Sénégal mooy nag tey jëlee amaat ndam ci kaw euh, ñii di nag euh, yu équipe bu Mali wa ilaa ñu def match nul bu leen permettre nag ñu mën a delluwaat ci euh, Coupe d'Afrique des Nations Sénégal nag bu ñu fàttalikoo fukki at a ngi nii moom nag mujjul gëj naa dem ci boobu boobule compétition kon nag maam Moussa si ak ay ndawam loolu nag moo nekk seen objectif di fàttali nag ni Coupe d'Afrique des nation féminines ñu nag fas yéene ko amal foofu ca Maroc dinañ ko door kon niki ñaar fukki ñaari fan jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weerum juillet gañu jëm ayca ñu waxtaanee kon nag euh, Ligue des champions huitième de finale tey jii ngoon. tey jii si nag kon la jeexal nag lu jëm ci wàllum huitième de finale allez ci Ligue de champions vingt heures Chelsea mi nga xam ne moo yoro raaya gi moo fas yéene nag dalal équipe bu Lille euh, foofu ci Angleterre vingt heures tamit Villarreal. ak ñii di waa Juventus bu euh, Turin ëllëg nag la ñu koy ndax képp ci diggante Atlético Madrid ak Manchester United beneen joŋante bi nag dina dox ci diggante Benfica ak Ajax bu Amsterdam di fàttali nag ni yeneen nag euh, huitième de finale yi nga xam ne jot na fee jaar euh, ci semaine bi ñu génn kon Paris Saint-Germain moom moo daanoon ñii di waa Real bu Madrid benn bal ci dara. ñii nag di waa Manchester City daanaka ñoom assuré nañu sax lu ci bëri na dinañ na qualifié ca quart de finale ga gannaaw ba ñu fekk jee. équipe bu euh, Sporting bu Portugal daan ko juróomi ball ci dara Milan Inter Milan moom ñii di waa Liverpool bu ñoom Sadio Mané ñoo leen fekki foofu ci nag euh, Milan daan leen ñaari ball ci euh, dara Bayern Munich moom dafa defoon match nul ci digganteem ak RB Salzburg benn ak benn match retour bi sax dinañ ko amal ni ki juróom-ñetti fan ci weeru mars. basketball la lañ ci mën a jàpp. basketball nag lu jëm ci wàllum fenêtre éliminatoire coupe du monde bi kon nag ñu fas yéene ko fii ci Ndakaaru foofu ci Dakar Arena ni ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak euh, juróom-ñaar Sénégal nag niki ki démb la amal seen euh, séance gu njëkk ci teewaay nag euh, juróom-ñaari joueur ku ci mel ni Alkali Ndour di basket foofu ci AS Douane Cheikh Bamba Diallo nekk ci Dakar Université Club ak Mamadou Faye nekk ci AS Douane Pape Moustapha Diop di évoluer foofu ci France Ami Amara Silla nekk ci Lutani ak Malick Dem Malick Dime nekk ci Israël ak Babacar Touré ca France en tout cas lu ci mënti am sélectionneur national bi di Mamadou duggee ñu gën ko xam ci pa bi nag jot na fa amal ak ay schéma tactique yu leer ngir nag Sénégal mën a dugg ci compétition bi di mu waree moom mi la sax moo ngi xam ne ni kon tey jile groupe bi nag war na mën a nekk au complet ngir nag ñu mun a nag door entraînement yi nu mu waree Sénégal nag di fàttali kon ci groupe D bi la nekk fas yéene ci ànd ak ñu diwaa waa Égypte RD Congo ak euh, Kenya euh, poule B bi nag foofu Cameroun moo fa nekk Rwanda Soudan du Sud ak ñi di waa euh, Tunisie compétition bi kon dinañ ko door niki àjjuma foofu ca Dakar Arena Mambay kon li moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram jaajëf Pape Matambu borom jëm si teex Duga rendez-vous 12 la ci Zik FM. incha allah xibaar pàcc mu.